Eh, ak gàddaayu saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain mu mel ni kon gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ali jàngat yu bari eh, lañ ci mën a jëlee képp koo xam ni eh, xam nga luy gëstu ak xam-xam di nga xam ni loo ci jëlee ci jàngat rek am na loo bàyyi di nga gis beneen gëstukat bu génnee yeneen ruq yeneen jàngat kon Euh, noonu la demee su ko defee ñu ni dañ ci euh, barkeelu rek lañ ci joto gëstu ak li nga xam ne jàpp nañ ni euh, ay tomb la yu ama am solo yu ëpp soobantal ñu génne ko ci audio bi maa ngi la doon wax ni kon mën nañ jàpp ne tomb yi gën a am solo ci fukki at ak ñett yi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi ko njëkk a gëm saxaaba yi dund nañ ko màkka waxna naa Lamartine nam ko euh, melale euh, ci bindam ba ci français euh, solo c'est la période de la faiblesse des moyens la petitesse du nombre et de la grandeur de la foi Mon yi bariwul lim bi bariwul waye nak gi kon nga gis bokk na ci lañu mën a jàngat ci jamono jooj ci fukki at yooyu ak ñett mooy yonent bi aleyhi mi ngi woon ci ay coono ñu koy bund moom ci boppam eh, ku mel ne abu lahab ak soxnaam gis nga li ci alquran wax boo demee ci tabbat yadaa abi lahab bi wa tabb waaye saxaaba yi ñi ko njëkk a gëm yëpp ñu ngi woon ci ay coono eh, ku nekk ak coono yi nga xam ni moom lañ la eh, teg gis nga bilaal ibn rabah xeet bañ teg ci dënd ba mu wen ahadun ahad gis nga sumayya mooy jigéen bi njëkk a faat gis nga waa njabootam yëpp gis nga yaasir ñu takk ko ci ay dénk euh, wékk ko euh, yenn bi salaam ne ko muñal àjjana ngeen ni mujje ak bundu xataal yu baree bari yoo xam ni euh, ñu ngi ko doon def jullit yi demoon nañ sax ba def leen boycott socio-économique daanaka ñu boddi leen bu ñu dajeek ñoom ci mbedd mi lëjal leen sonna leen lool fatt leen Euh, xiifoon nañu mar nañu euh, lu ne sax lekk nañ ko euh, naan ay sax di muucu xoju xobu garab yooyu yëpp am na ci ba yéen bi salaa salaam ndeysaan ñàkk soxnaam su baax sa sumuy muy xadija ak taxawaay bu am solo bu mu taxawoon ci wetam ak tamit bàyyi taxam boobu di abu taalib ni ko taxawoo woon ci waasoom ci waa Quraysh nga gis ne ci loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Euh, dem na ci sax ba Taif ndax doon yaakaar ne bu fa demee ñoom arab yi nekk foofu danañ ko gëm wala ñenn danañ ko gëm taxawu ko loolu ijtihaad la rek maanaam du alquran moo ko waxoon euh, demal fii wala bul fa dem moo tax mu def ijtihaadam euh, am njort bu mu njort mu dem fa waaye borom bi nattoo ko mu am lu ko fa fekk lu metti ngir wan ko ni bul yaakaar ni mission bi loo njort rek noonu lay demee bul yaakaar ni ay ay ay réussite rek lay nekk mën nga ci am ay jafe-jafe waaye loolu kenn mënu ko tuddee échec ci jàngatu diine du échec danga naan nattu la rek euh, boo xam ni fekk na ko ci euh, waaye nag euh, réussite ci jullit mooy lu la mën a dal ci métit nga muñ ko bañ a ñaaw njort ci yàlla bañ am yaakaar bu tas ci moom mun muñ muñ muñ bu rafet sa liimaan sax daf ci yokk ci borom bi subhanahu wa kon loolu euh, kenn du ko jàngatee nii échec la euh, échec la ci waa Taïf ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal leen sax ne dañoo xamul moo tax waaye euh, seen njaboot yonent bi ne maa ngi ñaan ñu am ay njaboot yoo xam ni danañu gëm lislaam kon loolu benn jàngat la ci aussi su ko defee kon ku jiite mbooloo toujours da ngay jéem a trouver solution yonent bi sallallahu alayhi kon noonu la def mu ne léegi fii metti na Euh, xaar ma jéem a solution su ma demee Taïf mën na am ma am fa euh, ndimbal euh, su ko defee ci la wax tamit yenn ki saxaaba yi nañu gàddaay dem foofu ci fi ñu tuddee tey Éthiopie Abyssinie Habasha ne leen am na nit ku jub ku màndu ku fa nekk donte woon du jullit buuru nasaraan la ñu dem ci moom kon mbokk bi te di ma déglu beneen jàngat fii mooy ni jullit da ngay wut ay xarit di wut ñooy dimbalikoo euh, te euh, loolu euh, warul firi ne danga ñàkk solo moo tax nga xaritoo ak ñu dul jullit ndax jullit bul wut ay noon bul wut ay noon bul taal ay fitna képp koo xam ni jox na la ma képp koo xam ni du la fitnaal képp koo xam ni li nga nekk jullit taxul mu boddi la wala di la xeex kooku Euh, mën ngaa doon xaritam moo tax gis nga buur bi du jullit waaye yéen sa salam wax na dem leen fa ku màndu la kon jullit da ngay xàmmee ñi nga xam ni màndu nañu même bu fekkee xamaguñu lislaam wala buñ ko xamee it te te gëmaguñ ko waaye ñu màndu euh, mën nga euh, am ak ñoom relation boo xam ni bu sincère lay doon dégg nga moo tax jaafar ibn abi taalib ndeysaan ak Ousmane ak ñeneen ñu ñu àndaloon bañ fa demee buur bi daf leen teeru teeru bu rafet protéger leen toog nañ fa ay at am na sax ay saxaaba yoo xam ni toog nañ foofu ginnaaw gàddaay gi ci Madina sax ñoom dañ fa toog am na ñoo xam ne fa lañ toog sax euh, daanaka euh, seen seen giiru dund kon moo lay wan ni loolu jàngat bu am solo la kon jullit day wut ay alliés mais jullit du wut toujours ay noon kii du jullit rek sama noon la kii lee la gëm rek sama noon la euh, kii dëkk ba la bokk rek sama noon la déedéet kii dafa am alal sama noon la kii dafa siiw sama noon la déedéet kon jullit day day xam euh, ñan la mën a euh, joxanteel loxo mu xàmmee ko baax loolu c'est très important ci ñu euh, jàpp jàngat boobu beneen jàngat bi mooy gis nga kon Afrique moo njëkk a teeru sax mën nga wax ni gàddaay ndax jullit yooyu foofu la njëkk a ñëw foofu ci Éthiopie nga gis ne kon beneen jàngat mooy yeneen bi alayhi salaatu wasalaam Euh, bi muy dem ci marché yi fu mu gis ay mbooloo euh, mu ñëw di leen waar ci lislaam qulu laa ilaha illallah tuflihu wax leen laa ilaha illallah ngeen texe su ko defee nit ñi daal ne waaw kii moom sañ na de euh, benn kàddu boobu rek mën naan ko wax di nga texe bu ko defee nag muy attiré ko jege nag naan ko waaw lan mooy laa ilaha illallah loolu moom gàtt na de kàddu bu mel noonu rek ku ko wax texe xam nga loolu tamit façon woote la pédagogie la su ko defee nit ñi di ko laaj nag lan mooy laa ilaha illallah bu ko defee nag mu leen koy Euh, tasal di leen ko euh, faram-fàcceel di leen indi lan mooy tawxiid nga gis tam beneen jàngat ndeysaan ci fukki at ak ñett yooyu borom xam-xam yi dañuy xàmmee sax saar yi ak aayaat yi nga xam ne dañu wàcce ci fukki at ak ñett yooyu ndax niñ koy xàmmee bokk na ci aaya yi doon wàcc li mu doon gën a insister mooy euh, di muñ loo jullit yi di wàccee xasasul anbiya ay nettali jaar-jaaru yonent yi ak way gëm yi àndoon ak ñoom ak coono yi ñu doon am pour wan leen ni yéen tamit ci ñooñu ngeen bokk coono yooyu tam du ci mucc ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam aay yi doon wàcc daf ko doon dëfal ci ngëmam di ko dëfal eh, ci eh, dégg nga di ko sant julli guddi xiyaamu layl eh, ngir loolu nekk ci moom formation spirituelle ngir mu mën a attan mission bi attan alquran bi wàcc ci moom attan tamit mission wu daawa bi kon loolu tam ay jàngaleel yu am solo moo tax xiyaamu layli boobu nekk farata ci yonent bi sallam depuis boobu ca Màkka ba ba sax bu muy génn àddina bu muy dellu ci boromam subhanahu wa kon euh, nga gis ne euh, jullit yi ñu ngi noonu ci xat-xat yooyu ba yonent bi sallallahu nag ba mu dajee ñenn ci waa Yasrib yu ñëwoon Yasrib xam mooy nekk la future Médine ba ñëwee foofu di umra si euh, wala di aj si mu am ñenn ñu mu ci waxal ñu gëm ko at ba ca topp fukkeel at ak ñaar ba ñoo ñu gëm ko dem at ba ca topp fukkeel ak ñett ba ñoo ñooñu dellu siwaat ànd ak ñeneen yeneen góor ak yeneen jigéen gën a feddali seen jaayante bi ñu jaayante ak moom moom la ñuy wax euh, bayatul aqaba le serment d'aqaba ñaari serment yooyu ñu jaa jaayante ak moom euh, ne ko ñun daal fi mu nekk nii pare nañ suñu alal suñu bakkan fi mu nekk nii euh, pare nañ pour lu lislaam laaj ak yow it sa jëmm ñu garantir la sécurité boo ñëwee foofu ak jullit yi bu ngeen fa ñëwee ñun dinañ leen protéger xoola kon yenn sa wut na ñoo xam ni gëm nañ ko Euh, wan ko ni boo ñëwee ci bërepp bi ñun dina la jappalé xam nga kon lool moy wane ni kon jullit Do teub rek dem fu la neex wala and ak ñu la neex waaye gis nga kon da ngay xam ñan nga mën a wóolu ak ñoom lan lañ la préparé loolu gis nga c'est très important planification ak confiance euh, c'est très important ñoo xam ne yéen a bokk projet bi ak pas-pas bi euh, nga xam kon fan nga leen mën a féete ak fu ñu la mën a féete loolu am na solo yéen sa salaam gis nga tamit ni mu def mooy yónnee Mus'ab ibn Umayr nekkoon na xale ñi naan vingt ans la amoon ñi naan maximum vingt cinq ans ñi naan dix huit ans mu yónni ko foofu muy def daawa di jàngale foofu li jot a wàcc ci alquran mu leen koy euh, firil ak tamit di leen jàngal euh, l'islam gis nga kon mu dem pour préparer terrain bi lu mel ne kon éclaireur la fa la fa la fa yónnee kon mbokk bi nga gis ne lii yëpp am na fi lii yëpp jot na fi euh, jot na fi am ba nga xam ni kon ci fukkeel at bi ak ñett bi. ci la yenn bi saa salaam jot nag ndigal ci borom bi subhanahu wa taala ci mu gàddaay te fekk ne waxoon na saxaaba yi ku nekk na gàddaay na ko mënee euh, ñi am fit am doole euh, ku mel ne Omar ibn dafa ñëw ci diggu penc bi ne maa ngi gàddaay euh, ku bëgg daal nangam ak nangam fekk la ci ndax danga ma maa bëgg a tere gàddaay gi na nga ñëw am na ñeneen xam dañoo génn naa ko guddi dem ñeneen ku nekk nanga ko defee loolu tam xikma la sagesse la ci lislaam mooy du ñu boole ñëpp. Euh, benn euh, doxalin bi ndax kon ñi nga xam ne jekku nañ ko day yomb ci ñoom ñi nga xam ne jekkuñ ko day metti lool ci ñoom moo tax yom sam dafa ne ku nekk na nga seet rek noo mën a fexee ba dem euh, yasrib nga dem fa fekk ndeysaan moom sax doon na am ay gént yoo xam ne da doon wan benn dëkk boo xam ne dafa am ay tàndarma ay taatu tàndarma yu bari ay palmier dace mais dafa foogoon ni yamaama la wala beneen dëkk ndekete boobu temps yasrib lay la nar a dem di gàddaay kon mbokk nga gis ne loolu ay jàngat la kon ci fukki at ak ñett yi nga xam ni yéen bi salaam def na ko euh, def na ko màkk bu ñu fàttee tamit al isra wal parce que ci fukki at ak ñett euh, borom xam bi jubóowuñ ci date bi ñi naan xëy na juróom at bi ñi naan xëy na fukkeel at bi euh, ci la def al isra wal mi'raj borom bi rañaan loo ko subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir boobu gis nga aaya boobu ci nga xam ne moo tàmbali suratul isra boroom bi kon yóbbu ko ci euh, ba mu jege ko euh, déeyonteeg moom loo xam ni euh, ñoom ñaar rek ñoo ko ñoo ko xam wante yoon sasalam bi muy dellu si la indiwaale juróomi julli farata yi kon waaye tam isra bi xam ngeen ne dem na baytul maqdis jiite fa yeneen yëpp kon pour wan leen ni man maay xaatamu nabiyin ak yi ci ànd yëpp kon al isra wal miraaj boobu daf ko dëfal yàlla defal ko won ko ni euh, yow euh, li nga xam ni euh, waajal naa la ko ci xéewal mu ngi ci àllaaxira nga koy am fii nag moom da ngay muñ nangoo gàddu mission bi kon ku mel ni abu Aboubacar moom mu ngi doon bëgg tout le temps ndeysaan ànd ak yéen sa salam ci gàddaay gi moo tax bëggul woon demal boppam amoon na pexe dem comme ñeneen ñi préparé woon na ay gëléem ay ay lekk ak yu nekk ak ay bëkk néegam waaye bëggul woon dem te àndul ak yéen bi moo tax chaque fois dafa doon ñëw ci këram euh, naan ko as soxba ya rasulallah as soxba ya rasulallah man daal yow rek laa bëgg àndal yow rek laa bëgg àndal yéen ne ko waa toogal nga muñ euh, ba ma am ndigal fan la yéen bi di amee ndigal loolu dañ koy faral di euh, bañ a bañ a bañ a bañ baña leeral bu a baax mu yéen bi sallam demul gàddaay lu dul fekk am na ci ndigal kon demul gàddaay rek parce que dafa mujj tay yi mujj sonn mu ne xaaral léegi ma dem te boobu temps wax na ñeneen ñëpp ñu dem xam nga kon chef noonu lay noonu lay doxalee ku jiite communauté noonu ngay doxalee yow da sàmm ñëpp yaa ngi njëkk seet sax ku nekk est-ce que euh, dem na nan la demee est-ce que euh, mucc na wala lu xew yooyu yëpp euh, da nga koy da nga koy seet ci waaye doo seet rek yow en tant que nga jiite mbooloo ba pare nga seet nooy sowee sa bopp yow wala yow ak sa njaboot nga daal di daw dem bàyyi fa ñeneen ñi loolu tamit jàngale la boo xam ni dañ ko ci jëlee léegi da nga gis ñu bëri ñoo xam dañuy jiite ay mbir waaye bu ñu fi commencé tar rek ñu daal di euh, jaar ci suuf euh, daal di dem seen yoon wala ñu ànd ak seen njaboot daal di dem seen yoon bàyyi ñeneen ñi foofu kon loolu doy waar la su ko defee nga gis ne euh, ci biir gàddaay googu sax da nga ci gis ay nettali yu wane imaan bu boobu Lamartine doon wax la grandeur de la fois ci ku mel ne Suhayb ar-Rumi Suhayb ar-Rumi le byzantin nga xam ni kooku moom tubaab la woon li ñuy wax romain la woon ñëwoon foofu Màkka euh, nekkoon fu doxandeem waaye mujj sax nag léegi euh, nekk ci dëkk ba ba yenn salaam woote ba mu dégg ko gëm euh, ba mu di gàddaay nekk ci yoon bi waa Màkka dañ ko dab nekkoo ko yow daal li tubaab di wax renégat doo nitu dara ndax lu nekk ñun defal nañ la ko ci teraanga léegi nga topp kii nga xam ne li muy woote day weddi suñu diine maam nangam ak nangam mu ne leen ah gëm naa ko te fi mu nekk ñi nag pare naa pour jaay leen sama bakkan bu fekkee ne rek sama alal li ngeen wax naan da ngeen ma ci jàppale ba ma am fi teraanga ak yooyu li ma jot a am ci alal yëpp mën naa leen wax fu ma ko def foofu màkk ngeen dem jël ma bàyyi leen ak àddina ak alal bi ngeen man ngeen bàyyi ma ak yàlla ak yonent bi allahu akbar sahib ar-rumi su fekkee nag da ngeen bëgg ma tere man sama bopp ma dem gàddaay kon ma jaay leen sama bakkan xam ngeen man ku mën a diir la maanaam archer la woon bu habile maanaam ku mënoon tiire ay flèche te kon balaa ngeen may jege dinaa faat ñu bëri si ñoom ci yéen ñoom bi ñu waxtaanee seen biir nag ñu xam ne waa ji àllaaxir la gën a jege àddina te faxasu na ci euh, àddina ak alal kii sax dafa bëgg faatu ci yoonu yàlla shahid la bëgg a doon sax martiir ñu ne kii nañ ko bàyyi dem bu ñu demee ñu jël alal ba séddoo ko waaye ñu bàyyi ko mu dem xoolal taxawaay boobu kooku ci moom la alquran wàcc parce que ba mu ñëwee euh, ba gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, Madina euh, di bëgg a nettali lii ma la wax nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow day li nga jaay yàlla jënd na ko réussir nga sa sa sa sa commerce bi ndax alquran boobu temps ñëw na wàcc ci moom di wax ne wa mina naasi man yashri nafsahu ibtiraa mardatillah mu ne am na ci nit ñi def su Suhayb moo tax mu wàcc am na ci nit ñoo xam ni dañoo jaay seen Euh, bakkan ngir amee ci ngërëmu borom bi subhanahu wa taala képp koo xam ne nag def nga taxawaay bu mel noonu bu Suhayb def da ngay dugg ci aay bi mais nag sa sababu nuzul bi dëgg moom ci Suhayb ar-Rumi la kon la grandeur de la foi bi la Martin doon wax mën nga ko gis Suhayb ar-Rumi kon yéen bi sa salam moom mi ngi gàddaay rek bi nga xamee ni wax dëgg yàlla li ñu mën a tuddee la solution finale mooy euh, waa Màkka yi dañu dem nag def benn réunion daal ne kii nag léegi léegi nañ seet nag léegi benn solution boo xam ne euh, suñ ko defee ñu pareek moom légui sëriñ ñu def ben réunion bo xamni dañ ci xalaat ñetti mbir yo xamni ne yéen sallam yëgu ci dara kumpala ci mom ba alquran ñëw di ko netali euh alquran di ko wax ci moy verset 30 ci suratul anfal wa iz yamkuru bika alladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin kon verset 30 suratul anfal bobu kon jibril ñëw wax yéen bi saa sallam ne ko borom bi yónni na mu ci yow na nga xamni euh yeufari def nañ seen réunion

kenn du lu mën a gisati tamit ñoom ba ñu waxtaanee loolu def seen complot alquran wax ne yàlla ñëw eh, yàq seen complot yëpp eh, yëgal ko yonent bi alayhi salaam kon bi ñu waxee seen ñett yi ñoom dañu mujj wax ne léegi bi ci gën a eh, dëgër nga xam ne suñ ko defee noppalu ci moom mooy ñu faat ko parce que suñ ko génnee dëkk bi ay nit mën nañoo dem fekk ko dëkk bu mu mën a doon wala mu nekk ci diggante dëkk yi fii dans la périphérie di woote te duñ ci mën dara parce que nit ñi dañuy dem dañuy génn di tukki di ñëw ak yooyu kon ñu ne boobu baaxul ñu ne su fekkee dañ koo tëj boobu tam du baax parce que tëj bi bu yàggee euh, di nga gis ay nit yu ñëw ne euh, nañ ko génne wala ay mbokkam taxaw daal ne lu tax ñu tëj ko nañ ko génne ñu ne euh, te arab yi dañoo bëggoon affaire fonkoon mbokk ak solidarité duñ ko nangu ñu ne kon li fi des mooy nañ ko faat rek nañu dajale ku nekk su ñun ñu jël ci waxambaane ñu jox leen ay xeej ñoom ñëpp bu ñu demee jamandoo ko su ko defee du mën a wax ne famille bi ñoom ñoo faat famille bi mais ñu ñu jël euh, maintenant alal dégg nga euh, dal di koy verser euh, moom famille yonem bi sala sallam tribu bi mu bokk bu ko defee coow li coow li jeex kon faat bi daal finalement mooy solution solution finale bi nga xam ni man maa ko tuddee noonu moom lañ mujj envisager bi ñu tollee foofu nag ci la yonent bi sala sallam gàddaay parce que ki nga xam ne léegi saxaaba yi dem nañu kon ñi fa waroon nekk di taxawul islam bi di taxaw yonent sala sallam di euh, wasaare kàddu lislaam euh, dem nañu ay benn benn yi fa des yoo xam ni ñoom sax dañuy nëbbatu euh, wala boo xëy na sax amuñu boobu taxawaay wala xam-xam boo xam ni xëy na sax dinañ ko mën a tasaare lislaam ñoo fa des ñenn xëy na sax ay mag lañ ak ay jigéen yoo xam ni dañu néew doole kon mu ngoog waaye loolu moo fa nekk yenn salaam ci boppam gis nga léegi nag ñi envisager nañ pour faat ko kon te suñu ko faatee mission bi fa lay yem parce que même bu amee yeneen saxaaba euh, même bu amee saxaaba yoo xam ni saxaaba yi fekkee dañ ko gëm mais euh, gisatuñu ki nga xam ni moom mooy jokkoog borom bi subhanahu wa taala wax yu di wàcc ci moom ñu koy topp kon duñu diine ji day fay moo tax nag kon bi ñu envisager solution finale bi loolu nag mooy euh, foofu nag ngay xamee ni yeneen bi sala salaam léegi amatul dara lu muy def màkk parce que ñi jàpp nañ ne léegi dañu war a pare ak moom mooy faat ko kon nag léegi dootul question parce que la bul fi wax nga dem wax ñu la euh, nangam nangam bu dañ la sax euh, transmettre euh, diine l'islam moo ci borom kon mais du rek ne bëgg a def lii mën am suñu defee lii mën am suñu réunion concrètement ba envisager trois modalités ba wax finalement sax valider mettre en œuvre mooy ñu donc bi ñu envisager le meurtre di prophète boobu la ko alquran wax nag léegi réunion bi nii la demee ci la am ndigal ci la génn nag léegi pour dem euh, ci euh, gàddaay bi pour jël nag léegi yoonu euh, Madina kon foofu la ñuy yem ci audio bi pour mu bañ gudd trop su ko defee incha allahu taala bun ñëwee ci quatrième audio bi ñu eggali jàngat bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa